Euh, monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal kilifa diine yi ci senegal yëpp monsieur le ministre ginnaaw temps bi bëriwul dama lay njëkk a ci problème mu Sadio d'ailleurs di leen félicité ci ndoxum Mbàkke mi nga xamante ni yéen ngi koy réglé ndax ñeenti forage yi nga xamante ni yéen a ngi koy jël Sadio di ko indi Mbàkke yéen a ngi bëgg a terminé phase mais bala ngeen a yóbbu Mbàkke ndox na ngeen fexe ba toog ak population bi ndax ba léegi nii ñu ngi demande autorisation pour forage yooyu nekk Sadio ñoom waa Sadio ñu mën ca brancher pour am ndox depuis 3 mois yi nii ñu ngi leen bind lettre pour ngeen tontu leen pour ñu am autorisation ba léegi mënuñu ko am bëgg naa nu mu gën a gaawee boo mën a recevoir maire bi ak collectif boobu nga recevoir leen bala ngeen a jëlee ci dëkkub jàmbur ndox di ko yóbbu ci ab dëkk ngeen res ngeen fexe ba saafara ndox moomu nga xamante ne moo nekk Sadio ndax maru 40 kon bala ngeen a leen dëkkub jàmbur ngeen réglé dëkk ba nga xam ne fa la ndox may jóge ñëw ci problème assainissement Touba Touba moom bu ñuy xool dëgg-dëgg manquement mën nañ ne problème assainissement la ndax ministre bi nga xamante ni mooy ministre Mansour Faye bi mu fi mujjee ñu interpellé ko ci problème mu route yu bon yi nekk Touba moom problème mu la wax ne moo ko waral kon jàpp naa ne problème mu assainissement foo ko takk wees na ko beneen bi ci toppaat ñu leen wax lu tax boo leen defar ay tali doo leen njëkk assainir ba pare ndax deux deuxième corniche bi nga xamante ni moo jaar kër Sëñ Cheikh Bombali bi ngeen te xeer bi da ngeen defar ngeen ko assainir ba pare ba pare deux lay nekk nekk assainissement ak espace vert ñu gis bi tali bi yeggee benn voie la nekk amul assainissement day mel ne yooyu kaayu ndox la juddu Touba ca kanam day wane esugu état bi ci wàllu assainissement ndax li Serigne Cheikh Tidiane si almaktum doon wax fu bit si am benn voie waru faa am Touba ca kanam jàmbaar lañ mais mënuñoo assainir dëkk ba màggalu Touba gi jàll képp ku ñëw ci dëkk ba di nga xam ne dëkk bi buñ ne am na assainissement doo ko gëm te li ngeen ne def ngeen ko ci ay milliards man gëm naa ne boo leen ko jëndoon ay sarbet teg ko ci dëkk ba ndox du fa kon milliards yooyu war ngeen wax fan ngeen ko dugal ndax jàpp naa ne duggul ci biir dëkk ba beneen bi ci toppaat ñu ñëw ci bassin Darou Rahman bi bëgg nañoo xam ban cabinet ngeen jox étude bi ñu war koo defar ndax mënuñoo gis bassin boo xam ne heure boo leen ko defaree mu yàqu te bu yàqu day yàqale ay toolu jàmbur yu bëree bëri te ñooñu duñu leen dédommagé loolu monsieur ministre war ngeen ko saafara ak ñooñu ngeen ko jox ñaata million lañ ci def wala ñaata milliards lañ ci def ak kan moo a topp loolu jaaduwul monsieur le ministre encore une fois bu leen def Touba comme dëkk yëpp ndax seen recensement yi ngeen génne moom moo signifié ne Touba yëmul ak dëkk yëpp ndax département Mbacké mooy département bi ëpp ay nit ci Sénégal kon dëkk boobu boo leen fay def war ngeen faa considérer comme loolu ndax budget bi Moustapha Ba di wax naan budget de solution budget de combat budget boobu li ci Touba di contribuer bëri na trop su ma juul mën na 13 pour cent te Touba ñaari problème am mooy problème bu ndox muñ naan ak problème bu ndox bu bu tawee fu mën a taa kon gëm naa ne war ngeen a gën a considérer Touba comme dëkk boo xamante ni mooy premier département du Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah